gisee ay euh, fan ci ginnaaw ñu déggoon la si sa benn sortie nga ne gëm nga ne président Sall du laaj troisième mandat mu mel ne tey jii nii euh, li xew jox na la dégg bi nga koy wax fan nga ko tegoon. mais fenn ci xam na ne gor la euh, xam na ne que yàlla mooy joxe parce que nguur dafa doy loo xam ne ne kuy jullit rek war nga xam ne ne yàlla moo koy joxe mm-hmm. soo xoolee vécu am cursus ni mu ko yoree sérénité dafa wane ne que yàlla tàgguwu ko bi mu koy jox mais à un moment face au destin il a pris ses responsabilités cette responsabilité l'a amené effectivement à exercer le mm-hmm. mu def ci ay jéego yu wóor Macky li mu def ci pouvoir bi mënatu fi def tey lu ëpp loolu parce souvenez-vous du temps de Wade on disait que kenn du lekk infrastructure. c'est ce qu'on disait. mu jëlee ko de deux yóbbu ko aujourd'hui à cinquante. Mm-hmm. mobilité bi jéego yu mag dañ ci def l'opérateur économique que je suis xam na impactu mobilité bi daan la doon coûter c'était cent milliards. Mm-hmm. suñ ci defee ay jéego désenclavé def énormément de choses mais def na loo xam ne c'est extraordinaire du point de vue euh, réalisation. Mm-hmm. il n'avait plus rien mais dañu nekk ci dëkk boo xam ne ne xaw ma lan lañu waaye folle dañ ko mën